yéen a ngi teewlu info 221 mbokk yi ñu àddu wax ci dogal bi nga xamante ni gouverneur bu Ndakaaru daal dina ko jël jëm rek ci fitna yi nga xamante ni ah, jamono ji mi ngi am ci réew mi ba tax rek moom mi lee eh, daal di jël dogal daal di tere lépp lu jëm ci circulation maanaam cak-cak yeeg ak yeneen moto yi daal ñu bañ a daw niki tey jii ba suba li ko doore teel àddina yem ak ñaar ko fan juróom ñeent ah, bu 17h jotee waaye tamit ñu fas yéene ko dàkkal ah, talaata niki suba fanweeri fan ci weeru mai atum 2023 bu juróomi waxtu jotee buñ sukkandikoo ci article bu njëkk ngir rek wàllu kaaraangi askan wi waaye tamit ñoom ñi nga xamante ni dañuy dawal ab moto fii ci département bu ndakaaxu daal moo tax nag dogal bi euh, di di gouverneur bu Ndakaaru daal di ko jël leneen du ci topp muy article ñi nga xamante ne nag bokkuñu ci moo xam ñi nga xam ne ñooy liggéey euh, ci wàllum force de défense et de sécurité waaye tamit ñi nga xamante ni dañuy liggéey ci wàllum euh, wergu yaram moo xam ñi nekk ci hôpitaux yi di dawal ab moto ñooñu nag bokkuñu ci beneen bi bu ci bokk lañ soobu mooy fas yéene motiver lépp lu jëm nag di jàmm waaye tamit indiwaat kaaraange fii ci Ndakaaru moo tax daal mu daal di ko tere waaye nag ñi nga xamante ne ay professionnel lañ te si seen uh, moto yooyu la ñuy liggéeyee ñoo ñàkk bokkuñu ci loolu uh, beneen article di article 4 lépp loo xamante ne nag jël nañ ko disposition yooyee ngir sàmm aaru kaaraange askan wi moo tax bu ñu sukkandikoo ci luwaa ba tax na nag moom uh, moom bu gouverneur wala préfet mi ngi sàkku rek ñu daal di defee lii ni ko bëggee ndaxte kenn ku ne naka boo ci deful daan ca teg nag dina dal sa kaw Euh, bu ñu sukkandikoo ci article 5 bi préfet bu ndakaaru mu ngi daal di jël dogal di waxtaan ak commissariat central bu Dakar waaye tamit service régional ñu yor wàllum kaaraange public ak commandant bu légion gendarmerie ndakaaru waaye itam képp koo xamante ne nag lii ñu tere defee woo ko nañ ko bëggee euh, buñ la ci tegee loxo nag dina am ay daan yoo xamante ne rek dinañ dal sa kaw ba tax na rek euh, mu def ko ngi rek fitna yi nga xamante ne ñu ngi koy nemmeeku jamono ji fii ci réew mi dañ ci am ay gàllankoor moo tax préfet daal di jël bi la dogal fas yéene koo def rek ngir daal di sàmmaat kaarange askan wi ndax ndaxte jamono ji euh, mi ngi jax si kër góor gi waaye itam yenn gox ku mel ne nag euh, Padoa ci pont 92 ñu ngi ci nemmeeku nag ab lakk yoo xamante ne jamono ji sa takk der yi dañoo am jafe-jafe ngir rek mun a aar li nga xamante ne moom mooy euh, boobee jafe-jafe mbokk yi ñu leen jaajëfal ci ànd beeg déglu bi dina wax na ngeen woy di abonné ci chaîne bi di info 221 maa ngi leen di jaajëfal